ku ku demoon ci ak kër yéefar sax tàmbalee julli te ñaanoo ndigal bu dikkee ne la man day julli gi nga doon julli sama kër gi neexuma ba boo nga dem julli waat xam ne ju amu julli loola sart la ci fekk ma ne kon suufiyanke yi nag ñoom kon ñoom ñu ne sart la ci julli gi mën a nangu mooy sa suux wi leew baat la bu am solo xam nga sëñ Tuubaa li tax kaalaam googee représenté booba booba laa ilaha illa laa suux waa leew xaaloo leer kan leew boobi salaatiini taw ci waay sa tux nii kulla maa xiini loolu ba tey jamono ji ñi ngi koy dund booba booba it mag ñi ñu ëpp ci ca mag ñi ñi booba borom daara ya booba ca lañ nekk sëñ bi nag nag ne man faxultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wala suraadiya gayra al ilmi wa diini man de yàlla doy na ma may doyloo naa ko loolu principe la bu am njëriñ nga xamante ne saw suux maanaam bu sellee tubaab bi du la mënal dara yaakaar naa nag bu ñu bu ñu bu ñu xoolee li noonu nga xamante ne mag ñi fexe woon nañ ba lislaam ji nekk benn noonee waaye booba bu bu Sëñ Tuubaa dikkutoon kon ruu kon lislaam ji kon du am ruu kon nag Sëñ Tuubaa it bu ñu dëddoo war nañoo fexe ba nun ñi ñi fi ne it lislaam ji am ruu ndax ginnaaw lislaam booba demoon na bay bëgg a dee Sëñ Tuubaa dundal ko kon nag nun it war nañu ci war nañ ñoo fexe ba islaam ji dund ndax kat islamiste yi ñi ngi ci bund bi ñi ngi ci bund kër bi ñi ngi fëgg te boo yeexee danañ dugg te ñoom day kon kaaraange ji nga xam ne moom la kër gi mën a am ba islamiste boobu du du mën a dugg yàq li fi mag ñi ci defoon mooy ñu dund diine dëgg dëgg dëgg wóolu su borom yaakaar naa Sëñ Tuubaa ba ba mu digalee maam Cerno Birahim ne ko dee ma mbelwaanil soo soo ma nag yelwaanal dee ma yelwaanal ci kër yi nga xam ne Lat Joor du leen jox ab dund booba kër Maam Anta Sali jëm dëkk booba sëñ Tuubaa du du fi fi lekk ndax Lat Joor moo koy jox dund daal dina ko nag soo demee bay ñëw na nga ub ndab la balaa cóolay kër yooyu nga xam ne Lat Joor da leen di jox ab dund di di di ko laal sëñ bi kooka kooka kooka set na ak a set maanaa ci ci xam nga sëñ Tuubaa nee woon na nee woon na maanaa léegi alwaraaw tarku maa laa ba'sa bihi xasara li ma bihi bas maanaam ma da ngay fekk xam nga fi tollu cuulali képp moom ku ne xam ne ne fekk na nangu na ko xetuk sa bu sàngara sàngara si xet ga ba leen dugg it maanaam da te nga woor maanaam léegi yàqu koor ga fekk na nangu na loola waaye sëñ Tuubaa moom daa gis ne xet googa ga moom mën naa jeexital ci ci ci ruwaam kon nag maanaam loolu nga xamante ne mag ñi fexe woon nañ ba ba lislaam am fu ne waaye bu bu dutoon nag sëñ Tuubaa nag roogi kon day dee léegi gi nag sëñ Tuubaa moom moomu roogi nan la ko andee maanaam nan la nan la dekkale lislaam mi ngi ko dekkal ci ne nekkat nee na damaa fekkoon booba nit ñi saxaaba ya wëy nañ ñeen nee na ñoo doon dundal lislaam ñoo ko doon yeesal ñu ne ko nuñ ko doon yeesale mu mu ne xanaa topp ndigal yi wattande ko tere yi loolu yaakaar naa boo demee ca bi day ci ci bi day yeetu suluk da nga da nga gis sëñ Tuubaa di leeral yeesal gi mooy lan mooy mooy tandiku tere te def ndigal yaakaar naa du du xam-xam ci xam rek soo demee Égypte fekk fa ay kàngam yoo xam ne ay cadre yoo xam ne islam bu doon am ndox dañ koo naan waaye taxut seen cër yi dund taxut xol yi dund mooy moo ci nga xam ne kon la tax xol yi dundul kon dara la maanaa sëñ Tuubaa moom maanaa dafa gis ne kat ci kat kon bu bu nit ñi lislaam ji julleeg war doyut waaye li nga xam ne moo gën a war mooy ñu mooy tandiku yu tere maanaam maanaam na tere yi yaakaar naa sëñ Mbakke ci Abdourahmane li mu fi doon waxtaane ci wàllum njaay bu ñu ko fexee ba mooy tandiku loolee dërëm bay jógee ci ca marché ba dugg ci yow saw soo lew su boobaa kat islamiste ba bu jógoon bëgg a dugg ci kër gi du ci ci ma dugg kon yaakaar naa kon mag ñooñu nga xamante ne mooy mooy Sëñ Tuubaa alaaji ji malik seeg seeb laa ñi sak ak ñu dul ñoom ñooñu day xam naa kon ñoom séenee nono war nañ ñoo seetaat kon ñoom lañ nekkoon xam nga danaay wax ne kat sëñ siidul muxtaar mii fi ne ku ne ku ku ne xam ne ne kaamil la kamil la maanaam sëñ Abdou Aziz siñoor ba mu fi fi ñëwee di ko siyaare si ne ko day ku ne xam ne ne ab suufi yu nga ab suufi yu nga ma ne am ma ne day sëñ Abdou Aziz siñoor day xam na baat bi lu muy firi suufi yu waxu ko ne ko de am mu tasawif nga dane ko ab suufiyu nga suufiyu nag mooy koo xamante ne sëñ Tuubaa la mu waxoon ne suufiyu mooy kan mu ne mooy ku ku yemale maanaam suuf si doñ ju suuf akub dërëm waaye mooy koo xamante ne nag day nooy népp nga xamante ne ku ku bon ak ku baax ñépp a yem fa moom maanaa maanaa kenn ku nekk àqi borom bi dong lay xool ci ci moom yaakaar naa kooku moom sëñ Sidul Muxtaar yaakaar naa ci naa ni sëñ Saaliwu doon dundale xol yi nga xam ne ne booba xol yaa ngi dund dund bu baax yaakaar naa moom it mi ngi dundal xol yi waaye nag kenn rek doyut sëñ Sidul Muxtaar rek doyut soo demee Njaasaan fekk fa maanaam ci ci ci sëñ Abu Nuama doyut ba tey soo demee lew nañu seen fekk fa kenn doyut waaye lay doy mooy ñu ñuy ay mbooloo bu jëkkoon ci jarim da nga daa fekk ay mag ñu bari mbooloo mu bari ñoo xam ne seen jëmm yi rek ñoo lay jëkkawan nekkat sëñ Tuubaa day nekkoon na fii sëñ Tuubaa mas naa jaar fii ay mag mbooloo yi mag ñu ñoo la ñoo la ñoo la da dawan loola waaye nag kat du du du duñ la ko wan ci bassin riche duñ la ko ko wan ci étage bu gudd oto bu bu bu baax waaye ña nga la koy wan ca leeru jëmm ya waaye nag ñooñu day ku ku mel ne sëñ Mor Jaxate moomee nga xamante ne moo doon noo du kërob sëñ Tuubaa ba nga xam ne seen dund gu metti ga mo mo moom lay wax sëñ Mor Jaxate day daana dem ca yoonu jaba toog fa ak i dongam su xëyee lal fa mbalaanam ñi ñi ña koy romb di de marché di fa sànni si maanaam ci maanaam dërëm su bu demee ba mu naaj bu xoolee gis ne kat mat naa ab dépasse mu dem këram te nee ñu sax kat su masaa di dem këram ba ba desee ku ko gën a soxla da ko koy jox da da ko koy jox yaakaar naa loola nga xamante ne bokk ak jullit ñi la nga yor ba sax kat soo amee lenn képp te sa moroom jullit gën la koo soxla nga jox ko yaakaar naa loola kon moo doon doxinu mag ña waaye do doxin woo nag métti na lool ba tax nag kon yaakaar naa kon day mel ne kon bu ñu bëggee jullit ñi ne nekk benn mën nañoo ne nekk benn day ci sahir si ni nga xam ne ni la ko sëñ si lu muxtaar fexee ba nga xamante ne buñ dee woor tey ñépp warandoo buñ dee tabaski noonu lépp lépp koor gi nekk benn islaam ji nekk benn loola day moom saahir si la waaye nag baatin bi mooy ñu fexe ba nit ñi gëm yàlla xam nga sëñ Tuubaa nee woon na inna aalal maqaamaati fi hasa zamani wa baxdahu iskaanu tawxiidi fil xalba gëm yàlla googu gëm gu wér cëng moo taxoon mag ñi démb rek am na ku ma doon ku ma doon laaj naa ma daal moom li ko jaaxal mooy mag ñi bu jëkkoon nuñ daa demee ci ab àll gor ko garab yu rëy yooyee nuñ ko masa nuñ ko mënoon na na goreeg loxo sañ ci fa sañ ci fa fa dëkk ma ne ko nag waaye nag booba nag ñoom dañoo yor dara ma ne ko sëñ ma jóg ma ma ma dëkkoon ma ma dëkkoon gàpp gàpp ba mu ba mu ba mu jógee Mauritanie ca Cheikh Sidiya maanaam déetu naa Cheikh Sadibou ba ba mu fa jógee Cheikh Sadibou ko tërbiya ba jox ko tur yàlla ne ko ne ko boole ko gëléem akub donga ne ne ko soo dee dem ba gëléem gi tërëf. na nga laaj ba xam garab sàngam ndax nekkul ca wetam su fa nekkee ci wàcceel xamal ne bara bàngoo ngab googu nga xam ne Mauritanie la la jógee di dox ba gëléem nga tërëf foofee mu laaj donga bi ne ko garabu ne foofu mu ne ko mu ne ko garab sàngam la mu ne ko mu ne ko kon fii la daal di wàcc ca diggaal ba la tax mu man loola tur yàlla nag maanaam maanaam julleg woor rek nii taxuta mën a dugg ci ci àll bi ndax kon boo xoolee sunu sang sépp ñi ngi ñi ngi ci dëkk bi Tuubaa rek taax yépp fu ñu toll sëriñ see ko fay dal waaye sëriñ bu ñemee dem nag ca digg àll ba am manding nga xamante ne mooy médecin ba mooy te- trésor ba bu nit ki wéradee sëriñ bi la yaakaar su xiifee moom la yaakaar xiif sax du du du am foofa yooyu yooyu yépp nag kon day am kon lu ko lay tay yaakaar naa kon li tax lislaam ji nekk benn na ko mag ña do do doxe woon am na ay condition conditions yi nag dara ju- dara jiituwu ci lekk lu lew dara jiituwu ci tërbiye suuf ya nga xamante ne da ngay sóobu ci su borom yor tur yàlla di di ko jëfandikoo ba xam lu néewul ci ci téere yi waaye sëriñ boo xam ne da damaa mas a dégg ci rajo bi koy tagg ab sëriñam di di ko tagg naan sëñ ba dee moom wut na sax de piqûre xaw ma ndox suuf jaan dëkk ba ku fa ndox suuf laal boo boo mënta jënd piqûre ba mu mu mu daal la koy may ma ne ay waay ah sëñ Mbàkke Madina mi mi ma xamoon de moom keesam gam daa ne képp aw fas wala dara su ko ndox suuf laalee suñ ko dugalee ca kees keesu biram nga su fóonee suuf sa képp mu dej ah gars yi nag lu xam nga nag kon nag sëñ ba ca Madina ca Madina dara ci wax naan lu guddi guddi ku ñëw na naag si ku ñëw na ndax booba am na maanaam guddi guddi xaaja guddi day jot waaye ju wéré di moo xam kilifa la moo xam ne kilifa wéré di ñu ñu andi ko mu ne moom lu guddi guddi rek ku ku ñëw naag si xam nga loola loola si si si si du xaajar moo baax mi de wax nañ ni ne daana wax naan ku ndox suuf laal ak. ku matu lu guddi guddi bu bu bu ñëwee nag si xam nga loola bokk rek ki ki nga xamante ne moom danaa man de ku ndox suuf laal am naa pikir bu koy wàccee xam nga loolu kon bu ñu bëggee lislaam ji nekkaat benn dañuy fexewaat ba la mag ña nekkoon fan yi rek benn élève da damaa laaj ab laaj bu am solo mu ne ma oustaz yow de man yéen de li ngeen di wax dama cee yëgu dara baat la bu am solo question méthodique la pour man oustaz day yéen de li ngeen di wax dama cee xamul dara dama cee yëgu dara maanaam tasawuf ji ngeen di wax lay wax kon kon tasawuf ji ñuy wax maanaam xale boobee mi ngi diglu rek kër kër yaa ngi bari day day yaa ngi coow waaye moom xol bi yëgu dara xale bu sell ngoog waaw ma ne ci xale boobu question boobu ci amul tontu fan la jëm ab islamiste kay lay gis islamiste ban naa ko ah yow day bàyyi fi jaam ñi te dem ci sa boroom xaala taala ki la bind nee na nangam xaala la sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam ki yàlla yónni ci jaam ñi nee na na nangam loolu de xanaa doy na yaakaar naa kon xale ba dana ko doyloo moo ne day day mel ne maanaam mbiri kama yii nga xamante ne moom la ñuy joxe ca kër docteur waaje dikk ñu ne ko médicament sangam day jënd ko ñaar la jar junni mu ne ne waaw lu ñu ko liggéeyee mu ñu ne ko paracétamol de bu dee moom la dana am dana am dugub bi bi suuna dugub bi suuna ji bokk na ca ca lañ koy composé mu ne kon te maa dem jëndi koon kilib dugub waaw waaw kilib dugub ba na nañu liggéeyee dugub ja ba man caa génne doom buy giifal métteetu bopp ndax waaja bu jëlee kilib dugub ba lekk ko ba mu jeex dana tax bopp ba giif kon maanaam mag ñi jëloon alxuraan ak sunna maanaam taaraar ko defar ko ba mu baax ñoo segal ko ba mu doon ak diw ñu génn diw ga ne la diw gii day soo ko jëfandikoo nangam mu jariñ la nangam te ña ko defoon ñëpp gis ci résultat te ku ko defat ba ba tey jii gis ci résultat yaakaar naa kon lay tax jullit ñi mën a ànd dëgg dëgg dëgg dëgg la benn ab philosophe ci waxoon ne insiharul afaq nu ñuy fexee ba ñëpp diggante xam nga tiyaan baag xaajir baag murit ba bu bu buñ dee day rek di di di yóbbu addi yàgg kalang kalang di yëngu di wéy élève boobu loolu mu laaj yéen de li ngeen di wax man di yëguma ci dara nu nuy fexee nag ba élève boobu ak keneen ku moom yëg dara yaakaar naa loolu mooy liy tax dëgg-dëgg maanaam ànd gi gi ma nekk kon sëñ Saliou salaam kon bisimilah.
jëf sëñ Moustapha ah wax ji de man jël naa ci rek ñetti ñaari point wala ñetti point ndekete li ñuy wax tasawuf